collectifu SATREC euh, ni ñu dàq SATREC ak SOTRAPAL ak délégation FRAPP bu Dakar dañu ñëw di yëgal situation bi nga xamante ne moom la travailleurs yi di dund ci ci ci entreprise bi te ci SATREC bi tale SOTRAPAL travailleurs yi amatuñu bulletin salaire depuis lu ëpp atax genn amatuñu heure supplémentaire cotisation IPM yi IPRES yi ak kes caisse sécurité sociale yi kenn verseetu ko amatuñu avance tabaski yenn ci liggéeykat yi kenn fayatu leen indemnité de congé direction bi tey bëggul ku fa tudd syndicalisation ku ko fa tudd mu dàq la te amuñu délégué de personnel ci satrak vitale sotrapal dafa am dool xawlin bi nga xam ne moo fa ne di dàq bépp jigéen bu fa ëmb ndaxte direction bi day wax ne lu ñuy jur dafa bëri Euh, lii depuis di 2019 si 2019 ak 2020 bi nag lu ñu ci euh, gis lu ñu dàq ci lu tegul fenn ay employés war nañu mot ci juróom fukk ku fa tudd syndicat ñu dàq la waaw condition ñuy dund metti na trop ba nga xamante ne am na suñu benn ancien collègue bu ñu woowee Moustapha Ndiaye bi nga xamante ne ci courant année 2017 bi demoon na bëgg taal boppam ci buntu palais présidentiel donc collectifu ñi ñu dàq sa SATREC ak SOTRAPAL ak FRAPP ñi ngi wax ne nañ leen fay seeni arriérés de salaire seeni heures supplémentaires ak seen indemnité de congé di wax ñu régulariser IPRES ak caisse sécurité sociale di wax ñu rembourser leen seen cotisation IPM yi di ñu jox leen seen bulletin nga xam ne depuis mai 2019 ba tey joxewuñu ko di wax ñu fay leen dommage et pour licenciement abusif ci diiru ci période mbas bi di wax tamit ñu def rappel différentiel ci salaire yi ci prime ancienneté yi ak prime de transport yi collectifu travailleur du SATREC SOTRAPAL ak FRAPP Dakar ñi ngi interpellé ministère du travail di wax ne nak la ministre du travail bi nga xamante ne moom mi ngi bokk ci parti bu ñu woowee parti de l'indépendance et du travail muy PIT nag di wax ne ñoom ay communiste nañu naka la ñu mën a toog di seetaan ñuy noote liggéeykatu Sénégal yi lu weesu liggéeykatu SATRAC yi am na liggéeykatu PCC yi nga xam ne toog nañu fukki wat fukki weer ak ñeent yoo xam ne fay ñu leen liggéeykayu ADBS yi dog nañu juróom fukk ak ñaari weer xam ne fay ñu leen am na tamit euh, liggéeykat yu nekk autoroute Ila Touba AIBD Mbour ñi nga xam ne dañ leen dàq ci lu tegul fenn am na tamit usine karo bi di waa Tay Ford di wane ni tey nii dafa mel ni nekk euh, liggéeykatu senegal bàkkaar la parce que ñëpp ñi ngi gis ne ñu leen di dëggatee te kenn waxu ci dara liggéeykatu li ñu dàq di SATREC ak SOTRAPAL ñu ngi interpellé tamit organisation patronale plus particulièrement CNP bi nga xamante ne SATREC bi tale fa la bokk ñu wax ci doxalin ñu tegul fenn yu ñaaw yi nga xam ne président directeur général di Chapeau Aydos moom lay def contre travailleurs yi FRAPP Dakar ak collectifu liggéeykatu SATREC SOTRAPAL yi ñu dàq ci tegul fenn ñu ngi ñaawlu tamit gendarmerie bi ñuy jël di leen utiliser ngir lu neex benn nit am xam ne saa yu buggee génnee euh, liggéeykat ñoom lay woo ñu ñëw foqati leen ci seen bëru liggéeykaay sànni leen ci biti di wax ne te euh, liggéeykat yu SATREC ji ngi wax ni ñu delloo leen seen àq seen yelleef lu mu gën a gaawee sinon ñoom ak waa FRAPP Dakar dinañu mëne benn euh, campagne de boycott ci bépp produit sat rek ak sottrapal